kon mbokk yi ginnaaw bi ñu santaatee borom bi subhaanahu wa taala julli ci sang bu tedd bi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, di nuyu di ziara comme nuñ ko baaxoo di ko defee saa yu nekk kër kilifa diine yëpp si jiital alxalifatul aam li taifatul muridiya al cheikh mouhamadul muntaqa bachir di ko ñaanal gudd fan ak wér ak mbooleem njabootu sëriñ Tuuba ak yëpp fa tabaarakallaahu noonu la ñuy nuyoo sëriñ Babacar Sy Mansour xalif général des Tidiane ak mbooleem xadara Seydi Xaaji Maalik bi yëpp di ñaan borom subhaanahu wa taala doolu leen jàmmal doolu leen defal tawfiq ba lu ñu yéene liggéey lislaam jaaree ko seen toolu maam euh, Seydi Xaaji Maalik Si ñu mën ko àggale niki noonu ñu ngi nuyu di ziara mbooleem këru kilifa diine yëpp ak kilifa aada yi li ñaan borom bi subhaanahu wa yokk ci réew mi jàmm ak sutura euh, di nuyuwaat bu baax a baax mboolem téléspectateur u Télé Prestige Thiès yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy safoo saa yu nekk ci suñu émission bi nga xamante ni ñu ngi koy taxawal fii ci biir kër gi di la place de l'enfant dans la religion muy taxawaaye ndaw ñi ci biir diine ji taxawaaye ndaw ñi ci biir diine ji yaatu loolu sabab léeg-léeg ñu sekk ko ànd kook yéen léeg ñu sekk ko ànd ak ay yarkat ñoo xamante ni seen xam-xam màcc na ci yar ak jubbanti waaye léeg-léeg it ñu sekk ko ak ñoo xamante ne ay ndaw lañ yoo xamante ni dañuy yeewoo ci biir société bi diine ak lislaam ak jub ak baax rek yitteel leen ah, noonu lañ koy àndaat ak yéen tey fii ci suñu émission bi nga xamante ni mooy la place de l'enfant dans la religion ah, sekk ko koo xamante ni du gan ci kër gi waaye ah, du gan ci ci seen i kanam eh, di Pape Thioune eh, di jàmbaar lool moom la ñu dalaloon tey bëgg a sekk moom ci waxtaan boo xamante ni am na solo lool eh, bu ñu bu ngeen xeraloo tuuti rek ne tuuti ñu yaatal ko balaa ñuy àgg foofu rek dañ koy jox mu nuyoo ak ñi nga xamante ni ñooy téléspectateur sëñ Pape. wajal kalaami rachidan wa murshida wa fikrati nawwir وفكرتي نوير وخل بأرشدة وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وخل بأرشدة السلام عليكم السلام عليكم زيار وعليكم السلام ما زيار دي دي لنوي وباخ دي كونتان لول سي دالال بيغ من دال سا بلاطو ني بوكي تام دي زيار كنويو كيب كو خامن ريك سا سي تامبي باي خلاك فو مونتي نيك دي كو نيانال بروم بي دافال كو جام جام jërëjëf mi ci nuyoo bu am solo bi euh, di Pape mm. euh, nekk jàmbaar lool euh, ci niñ koy gisee di amal lu am solo waaye laataa ñuy dugg ak moom di sëkk ak moom ci waxtaan bi rek bëggoon nañu xam Pape mooy kan laataa ñuy dugg ak yow ci li nga xamante ni moo ñu tax a moo ñu tax a toog fii tey. jërëjëf Pape Thioune doomu Thiès la dëkk Thiès. Mm-hmm. judo Thiès yaroo Thiès màggee Thiès. Mm. franco arabe bi la laa jànge mm. Bilal war nga xam moo nekk Teglon donc fa la jàngee ba am sama certificat Arab, donc bi ma fa euh, ma dem école Mamadou Diaw mais Jules Sagna laa amee BFM jógee Jules Sagna dem nouveau lycée amé fa bac ba amee bac nouveau lycée ma dem université Anta Dakar ma def fa arabe donc département arabe laa dem na ba master 2 en Arab, sama mémoire ma ngi ko waroon a bind sur l' institution califale dans le mouridisme maanaam gi ci murid Euh, bindoon sax première partie bi. macha allah ba léegi maa ngi wëyal di di ci gëstu ba léegi nii. Hmm, macha allah solo di ñaan borom subhaanahu wa doon la defal kattanal ah, ba loolu ngay bind mu mujjee ak si suñuy loxo ñun ñëpp ñu far jariñ jariñu ah, mu nga kon nekk jàmbaar lool ah, ñi xam ko muy ngay amal benn émission boo xamante ni da nga koy def tuddee ko euh, suñu royuwaay hmm. di ko taxawal ci télé ci euh, rajo chaque hmm. vendredi ñi seetlu ni chaque di nga jël kenn ci mag ñi nga xamante ni moom lañu am ci biir réew mi ñu nekk ay gindeekuwaay saa yu nekk nga jël ci kenn ah, di leen di leen faramfàcce di jàngale ñoom seen ja seeni seeni seen bind ba askan bi yëpp di ci jariñu mun bëggoon nañoo xam ah, lan nga jublu ci loolu wala ban jàngat nga nga gis ci loolu ba tax nga koy eh, jotale ci mbooleem ñi nga xamante ni ñu lay dégg. jërëjëf xam nga. dëkk boo gis rek bu jëm kanam am na lu ñuy tuddee un référent référent national moy ko xamni day nek jambar dëkk ci dëkk ba waye nak réaliser fa réaliser fa lo xamni ndaw bu nek bu ko jëlee def ko référence xol ko tek ko ci kanamam fu mu bëgg yegg rek mën na faa yegg te xam nga bo xolé bokk na ci li manqué ndaw ñi léegi ba tey lu bëri mënuñu ko réaliser moy manque de référence n'est-ce pas way waykatu arab waxon waxoon matal mudawa wal mudawi wal si jëla dawa ki wara indi garab gi deena médecin bi faj deena ki ñi faj nu muy def moom it day dee. boo demee tey ci dëkk yu mag yi nga xam ne tey dañoo euh, développé wu jëm ci kanam je te donne l' exemple de Chine. Hmm. dëgg la faral coronavirus jugee. Hmm. waaye Chine ci boppam ci 1960 moom ak Sénégal ñoo tolloon benn niveau. Hmm. ci wàll ci wàllu dëkkin ci wàllu dundin ci wàllu yëpp. ba li ñuy tuddee sax coopération sud sud daan nañ leen dimbali ñun. tey Chine ci àdduna bi moom lañ moog États-Unis ñuy xëccoo leadership mondial. dëgg am ñaari dëkk yi gën a kawe ci àdduna bi waaye ñun dañ ñu boole ci 25 pays yi gën a ndóol ci àdduna. ça veut tout dire. Hmm. Chine dañu am un Mac Mao. Hmm. Mao il était capable de mettre en rang 193 millions de chinois mu nous nañu gëmaat suñu bopp jël xam-xam yépp tekki ko nous nit ki édifice. Hmm. édifice. maanaam nit ki boo ko defarul te defar nit ki mooy wan ko koo xam ni jàmbaar la ci hmm. taxawaayam dëkk la maanaam boo defee defaree nit ki ba pare soo ko defar édifice yi mooy waral nit ñi du ñu mer yàq édifice exemple bu bu terre à bu ma lay jox hmm. mooy étudiants yi bu ñu meree lu ñuy def nañuy dem fekk bus ñu taal ko dëgg la wala ñu lakk banque hmm. n'est-ce pas bu fekkoon ni jiite nañ li maa wax maanaam defar nit ki tey imaginel xale bi nekk jardin ñu jàngal ko kun man bu Serigne Touba ah, ni ko kun kaati man li durri wal buusa تنا القصد وتعالى الجيل يا متعلم فالعلم لا يعطى لمن يخشى الضوى بل ربنا عبد صبورا يلهم parce que ki nga xam ni dafay wut xam-xam ñaar rek ko ci bàyyi mooy benn objectif bu njëkk bi mooy mu am xam-xam waaye beneen bi itam nag mu mën a réaliser wu maanaam tey bu ëllëg ci xam-xamam mu mën ci boo amee soxla ëllëg lam bosam faj ko Sëriñ Tuubaa nee na boo meloon noonu maanaam yi pëkk-pakk wala jafe-jafe yi lay dal sa école bi bu retard de bourse yeeg yooyu yëpp yi lay dal hmm. métit yi Sëriñ Tuubaa nee na bu fekkee muñ nga ko ba ku la gis jàpp ne manqué woo dara Sëriñ Tuubaa ne na li la tax a jug di ko am mu ne beneen bi itam mooy taalul ji la mooy di nga sut sag maas n'est-ce pas hmm. kon Mao ne na tey Chine chinois yi ba nga xam ni ci wàllu discipline ci hmm. wàllu yar ci wàllu teggin waaye tey fi ñu toll ci àdduna nga xam ni kon loolu moo waral ma ne nag ñu nit am nañu ay mag parce que al maktum dafa wax ni seen ah. màkk ñu gën mag yi dem waaye ñu leen gën mag yi tey waaw looloo rek moo waral may def émission boobu di wax ndaw ñi lan la ñu war jël suñu mag ñi bu ñu bë bu ñu waree bu ñu bëggee defar suñu dund parce man dama jàpp ni waruñu nekk des éternels pauvres dëgg la xam nga euh, dafa am benn anthropologue sociologue bi wax au Sénégal on a tout on a des savants de toutes sortes on a des techniciens on a des polytechniciens on a de la matière grise Il y a tout lépp lu mais mu ni lu tax dem kanam mu parce que tout simplement nous manquons de leader hmm. te leadership boobu nag suñu mag ñi dañ ko incarné moo tax may jàngal ndaw ñu mag ñi macha allah solo mi ngogu kon ci leral yi hmm. euh, tënkal na le li nga xamanteni moy euh, émission bobu nga xamanteni mi ngi koy taxawal di lu am solo hmm. di jëriñ ndaw yu bari di leen jubbanti muy way suñu way di ci jàngale lu am solo ngir ne xam na ni mag ñi li ñuy li ñuy produire bu ñu ko jëlee tas ko ci ndaw ñi rek adduna ah, bi yëpp mën cee jariñu waaye buñ bu ndaw ñi jariñoo rek adduna ah, bi baax mën a jag ndax ndaw moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne ashabab hum imaadu hadhihi al umma kon ndaw ñi bu ñu baaxee rek ah, mën nañu am yaakaar ni société bu baax la ñuy am waaye tey suñu émission comme ni nga ko waxee loolu ngay liggéey fële di jël mag bu nekk di ko waxtaanee mm-hmm. tey dama soo ma mayee rek dama lay tànnal dama lay dama lay tànnal ñetti mag ci magu réew mi nga xamante ni ah, jàpp nañ ni buñ ci jëlee rek exemple ndaw ñi dinañu baax wala sax mag ñi dinañu fàttaliku bu fekkoon fàtte nañu muy nii bëggoon nañoo jël ah, ki nga xamante ni mooy Maulana Cheikh Ahmad Bamba radiallahu anhu ah, ci jàngaleem waaye bëggoon nañoo jël ki nga xamante ni bu ñu waxee Cheikh Ahmad Bamba mhm. xam nañu maam Cheikh Ibrahima Fall mi ci wetam di jàmbaar lool di baabul muridiin waaye bëggoon nañoo jël ki nga xamante ni mooy Euh, Cheikh Ahmad Tidiane si almaktum ndax dégg naa sa biir wax nga ni moom mooy sa professeur euh, ni nekk jàmbaar lool kon xam naa fi ñuy njëkkee rek mooy Cheikhul Khadim Cheikhul Khadim Serigne Touba moom jàngale Serigne Touba ci yare lan ngañ ci mën a wax sëñ Pape jërëjëf euh, comme tànn nga ñett ñooñu c'est bon baax na hmm. dañuy ñu jéem rek indi ci ay jukki li nga xam ne jàpp nañ ko ci ñoom hmm. tey Serigne Touba c'est un référent national ni ma ko waxee sànq maanaam Serigne Touba dafa nekk karamatul jinsil aswad hmm. maanaam dafa nekk Euh, noo ko mën a tuddee kiraama la ci bépp dër bu ñuul. ndeysaan xam nga oustaz tubaab yi jëlewuñ fi Serigne Touba parce que dafa mën a julli. Mhm. tubaab yi jëlewuñ fi Serigne Touba parce que dafa mën a woor. Mhm. tubaab yi jëlewuñ fi Serigne Touba parce que dafa mën a génne asaka. Mhm. wala day dem day dem Makka ak yu mel noonu wala dafa mën a jàngal Alxuraan. tubaab yi dañu fi jëlee Serigne Touba parce que dañuy wax ni il est subversif. maanaam baatu subversif mooy koo xam ni kenn mënu koo jaarloo fi nga bëgg. ndeysaan maanaam Serigne Touba moom dafa taamu fi yàlla bëgg rek lay jaar. Si vous mënee utiliser baal bi que baal ku Touba capitale bu Sénégal benn dëkk bu ne Sénégal bu amul bâtiment colonial donc fa Touba waaw amu hmm. Hmm. n'est-ce pas. donc tey ku mel noonu su fekkee am ko. Hmm. Serigne Touba bu ñu ni fanweeri at ñett daf ko def ci loxo tubaab bi fanweeri at ñett 33 ans. 33 ans ñu privé ko liberté moom Serigne Touba. vrai ou faux. d'accord maintenant. بام يوسا خسوري خلت ولا لا نتفرح خلت ما هو الذي أنو المدي خسيره شيء لقي سيرين توبا لان لان لان لان داو ني ورا جانغ تنيوم شيء سيرين توبا موي لينجك موي خم خم دقلا بايعني نيت كي منول أم ديفلوب ما بيرسونيل ولا نيت كي ولا ريو منول جم كلام تسوكن ديكول شيء خم خم دقلا je donne un exemple دفعم بين شاش شينوا بو فك بين امبرير بوي شين موي بريباري ارميم جند اي شار دو كومبا جند اي ارمي بس militaire yi di di di di di entraîné hmm. le charge ñëw daal di wax empereur bi ni ko lu waral li mu ne ko dafa am dëkk bu mu bëgg détruire mu ne ko dëkk boo bëgg a yàq moo waral nga jël alal yu bari def ko nii ci ay com ci ay char ci ay armes mu ne ko waaw mu ne ko kaay ma wax la lu gën a gaaw ci yàq dëkk. Hmm. mu ne ko est-ce que am na lu gën a gaaw ci yàq dëkk lu dul guerre mu ne ko waaw kaay ma wax la ko mu ne ko lan la mu ne ko si tu veux détruire un pays. Inutile de lui faire une guerre sanglante qui pourrait durer des décennies et causer beaucoup de pertes en vies humaines. Mhm. Il suffit tout simplement de détruire son système d'éducation et de généraliser la corruption. Ensuite, attendre 20 ans. Tu auras un pays dirigé par des ignorants et conseillés de corrompus. Si tu veux arme parce que tour dëkk boo xam dañuy xam-xam mënul la Cheikh dafa l'éducation est la première industrie d'un pays. Hmm. mu ne ko boo après nga fexe ba corruption maanaam ñun Sénégal ñu zone actuellement nii. Hmm. al fasadu fil barri wal bahri hmm. corruption law ci dëkk ba. la après nga toog ñaar fukki at mu ne ñaar fukki luy xew dara. parce que mooy ñi nga yàkkoon seen njàng te ñu xamul dara réew mu ñu yor réew ma mënul jëm kanam kon mbiru ma na sax na mm-hmm. beneen bi ci des ay sàcc ka tafay ne parce que corruption moo fay wala dëgg la mu ne mooy li gën a gaaw jarul ngay rey ay nit te effectivement wax na dëgg mm-hmm. Serigne Touba tey coow li muy bari bari yëpp lii Serigne Touba bind ci xasida mm-hmm. ci mbindam nga xam ne tey boo nekkoon université Cheikh Anta Diop ah, ah, bu Dakar ndeysaan amoon nañu Oustaz ja bu ñu daan jàngal ay poème Serigne Touba bindu Serigne Touba yi danaan jékki-jékki ba ci àgg mu ni kenn du Serigne Touba ci bind. dëgg la nga xam ni Xaadima Jaxate Kala ci wàllu arut poème et tout ça kenn mënu ko ci woon ci dëkk bi. déedéet Serigne Touba daan na dem ci moom mu koy tëralal bind. Hmm. dafa mujj wax Serigne Touba ni ko xadd xunta im nan fa sirta abba wa kunt wa kunt waxad kunta euh, euh, tilmisan fa fa sirta cheikha waaw ni ko yow Serigne Touba man man ak sa baay Mame Mor Anta Saly ñoo yaa doon suñu ndonga dëgg waaye tey nag yaay suñu professeur yaay suñu professeur waaw ni ko yaa doon sax suñu doom waaye tey yaay suñu bàyyi dëgg la ñu dem sax ba nga xam ni euh, bàyyi Serigne Touba daraan jël li Serigne Touba bind di ko jàngal te boobu Serigne Touba ndaw la pour wax la ni mu fonke woon xam-xam mm. Serigne Touba dafa ñu lijjantin. bëri mën nañoo wax ci âge ci âge. âge bu ndaw ok ci âge boo xamante ni tey jii. Euh, ndaw ñi war nañ cee war nañ cee jàngee lu bari. Euh, war nañ cee jàngee lu bari boo xoolee. Mhm. boobu mën nañoo wax ni 40 mhm. ans ci zahir matagul. waaye boobu mu toll ci niveau. boo amagul fanweeri at kon ndaw ñi war nañ cee am. lu ñu jàngee foofu xam nga les fois sax dama bëgg a baatu mag ñi. Mhm. parce que booy wax mag ñi rek kiy déglu laa kiyaa biy déglu. moom dafay jàpp ni sëñ Tuubaa bi muy réaliser loolu kon mag la woon. dëgg fekk na Serigne Touba bi nga koy réalisé li muy réalisé bi nga koy réalisé amagul fanweeri at léegi man yow yow may déglu da fanweeri at fan nga toll ci pas-pas fan nga toll ci taxawaay lan nga bindagum tamit hmm. ba xam bind nga sax ab poème bu ñu fàtte ni Serigne Cheikh Al Maktoum professeur bi mu amee 16 ans la bind livre am bi njëkk Vices des marabouts fukki fukki at ak juróom benn ak juróom benn 16 ans waaw yow mi am 16 ans di ma déglu hmm. bëgg xam-xam lool légui mo régler ñu problème bi Serigne Touba wax nañu ci khassida raaya ni nit ki su bëggé koom wala mu bëgg jëm kanam wax nañu lan moy tax nit ka am ko wax nañu tax lan moy tax réew am ko buñu faté ni Touba moy deuxième capitale économique bu Sénégal mais Touba fan la nek ci région de djourbel djourbel bokku na ci région yi gëna ndul ci Sénégal kon lan mo may lolu wala lan moo may lolu Touba Serigne Touba wax na ni dafa wax ci ben khassida bu mu wax raaya wax ni khalbi lahu fil itab bil jism takraru لأنه للهدى والنور جرار يلوم جسمي دعبا في الجلوس بلا علم ولا عمل والنفس غرار سنتي بارا ماني سما خول دا فاي يد سما يرام من سيرن توبا ني نكو يو سيرن توبا سا خول سي لان سي لان يد سا يرام موني سما خول مي نيد سما يرام من سيرن توبا تي بيب توك بو تا با با دا فان دا فاي تامو نك تكرار موي لو نيي بامو ريبيتيشن دغال سي لان لاخو يد موني تي بيب توك بو خاني مانكوي توك من سيرن توبا ساكو ما خام خام ولا ليغيوما kon nit ki li koy jëmale kanam wala am réew lan la. xam-xam ak liggéey liggéey. boo jëlee boo gisee euh, turu dëkk àgg fenn fi wala hmm. turu koñ àgg fenn fi boo xoolee ba ci biir. Hmm. Euh, boroom xam-xam ba nekk ci dëkk ba la. Hmm. wala euh, ci wàllu liggéey. nga xool barabu liggéeykaay bu nekk ci dëkk ci ci ci koñ ba la wala ci dëkk ba. wala liggéeykat ba nekk ci dëkk ba wala wala wala kii boo xoolee lu ma ni Dakar. boo demoon bi fu ngaleem fu gën a sori ci Sénégal foo ko laajte ñëpp xam ko. ndax lan barabu liggéeykaay yi am solo yi nga xamante ni ay doomi réew ñoo ko fay taxawal ah, di fa tàggat ay nit kon loolu day tegtale si ni eh, eh, réew bu bëggee jug comme li nga wax rek faaw mu sukkandiku ci liggéey mënul ñàkk sëñ Pape xam-xam n'est-ce pas léegi Serigne Touba wax loolu ci ci raaya moom nag mu jël xam-xam teg ko foo xam ni tegu fa leneen nes Nelson laa dafa wax ju am solo dafa wax ni éducation rek mooy fekk koo xam ne baayam jardinier la woon yaayam nekk jaaykatu gerte mu def ko président de la république. dëgg la ngeen baal ma exemple bu ndaw mooy ki ñu jiite tey président Macky Sall baayam lan la woon. Hmm. jardinier la woon. Uh-huh. yaayam doon ndeysaan toog ci di jaay gerte caaf ak yu mel noonu. Hmm. lan moo ko permettre tey mu jiite Sénégal ñàng la. ñàng xam nga tey Japon naka Nagasaki loolu ñëpp xam nañ bombardement bi fa amoon Japon nekk dóom. Hmm. waaye tey Japon booy tudd fukki dëkk yi gën a développé ci àdduna da ko ciy boole. lan moo leen ko

mooy waral nit ki fu mu bëgg egg mooy ko fa Serigne Touba nag dafa fonkoon xam-xam. Hmm. Serigne Touba dafa mës a gis benn naar buy jaay benn téere. Hmm. problème mag ñi niñ bëggoon xam-xam. dëgg la Serigne Touba bëgg jënd li téere bi am na ñu ne sax ñett dina mu nguur lay jara hmm. waaye Serigne Touba amul lu mu jëndee téere bi boobu mu ngi nekk ndaw. mu ne naar bi looy jaayee téere bi naar bi ne ko ñetti dërëm mu nguur am ñu wax loolu. Serigne Touba ne ko bëgg naa ko waaye yoruma xaalis bu ma ko jëndee waaye kaa ñu ànd rek. parce que Serigne Touba moom fas yéene wala yéene bàyyi naar bi dem ak téere dem ak téere parce que jamono jooju téere dafa dafa jafe dafa woon waaye yow sa sa téléphone bi rek mën na doon bibliothèque hmm. téere boo ci bëgg mën nga ko télécharger lire ko hmm. maanaam bi xam-xam yombee ci la jafe bi xam-xam jafee ci la yomb ci mag ñi Serigne Touba ànd ak naar bi dem ak moom muy seeti benn xaritu way juróom Xaadi Mamar Dasali hmm. bi Serigne Touba ñëwee ci góor gi nuyu ko góor gi xool li Serigne Touba sol ak yëre yeeg yu mel noonu ni mu xotteekook yooyu mu ni Serigne Touba wax Bamba yow loo sol nii lii lii ah yow iya, doomu kilifa nga nag del sol lu lu kii ak yooyu góor gi daal di jug dugg ci biir néegam génn fi jàllaaba bu rafet bu cher ci jamono yooyu daal ko jox Serigne Touba ni ko demal nga simmi ni ko sol nga sol jàllaaba bi Serigne Touba dem ci ginnaaw simmi yére yi mu sol jàllaaba bi naar bi nag moom mi ngi toog fee ak téere bi di seetaan après Serigne Touba daal tàggoo ñu génn dem naar bi ni Serigne Touba sa jàllaaba bi rafet na de hmm. trop sax Serigne Touba ni ko bëgg nga ko mu ne ko waaw Serigne Touba ni ko jox ma téere bi mu ne ko téere bi pour lan mu ne ko jox ma téere bi ma jox la jàlla bi naar naar bi ne Serigne Touba ñu jéggal ma ci bi ni ko yow xanaa ça eh, yére bii mën na jënd fukki téere bi Serigne Touba ne ko du doy da nga ni bëgg nga yére bi mu ne ko waaw mu ne ko man téere bi laa bëgg xam-xam nar bi jox Serigne Touba téré bi Serigne Touba dem simmi yére bi solo yére yi solo jox nar bi yére bi. xam nga nar bi tay suma ko expliquer won fi ki di déglu du xam histoire nar bi. way Serigne Touba demal fépp ci aduna fo dem amna keur Serigne Touba. motax xam-xam loko jinde jarna ko. dal na wax ni wa man nahaakum an taallumi. foofu wax xalifa fa nahyuhu ala dalaliyan ila dalaliyant tumi Serigne Touba neena kep ku lay tere sa ko xam xam-xam ku réer la ku lay reer la. mu dem sax bani fa firru minhu Serigne Touba neena bo boo nit di ñëw mu leneen ni su ñëwee dalay tàkkal ak xam-xam Serigne Touba nee na dawal nga woon ko ginnaaw moo tax ndaw ñi faw ñu dem góorgóorluwaat ci sàkku xam-xam jël Serigne Touba ci xam ci bëgg xam-xam ak fonk xam-xam ak fi mu tegoon xam-xam ba tey lu baree bari mu mën koo moom Serigne Touba macha allah amna solo comme fi nga daanalee rek Serigne Touba ak xam-xam ba taxoon comme ni mu ko waxee ci bëyitam yooyu waaye dellu waxaat it wa man nahakum ani taallumi fa huwa xalifatul lain mujrimi muy lu am solo muy ni képp koo xamante ne xañ na leen sàkku xam-xam kooku moo représenté Iblis ci yéen. Sëriñ Touba dayoom ci xam-xam nekkoon daye bu am solo bu boo xamante ni euh, la shabiha lahu amul amu ci amu ci amu ci nend euh, ba tax ni li mu am yëpp daanaka mën nañoo wax ni euh, looloo ko ka may ci xiir ci xam-xam ak jot ko yitte waaye xamoon it valeur bi mu am taxoon mu joxoon ko léppam ba tax ni comme ni niñ ko misaalee ci diggante moom ak naar bi. moom gisatul woon taaru yére bi waaye li mu gisoon rek mooy téere bi kon loolu ndaw ñi war nañ cee bàyyi xel ci loolu dama la si jox exemple bu ndaw rek ci ci Serigne Saliou Mbacké ndax nit ñi dañ koo bëgg la xam nga Serigne Saliou moom boo ko tuddee ñu bari jooy ñi daan ñi tuuri xéwal hmm. waaye Serigne Serigne Saliou laata ci amagul sax ñaar fukki at hmm. ci la daan sonn ci xam-xam moom kenn gënu ko woon a sonn ci xam-xam nag Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou da daan def fu mu dégg borom xam-xam mu yóbbu fa téere pour nga jàngal ko hmm. mu dem ba Serigne Abdoulaye Mbacke bu ñëwee laajte Serigne Saliou ñu ko dem na dëkki sàngam ngir tëralu benn téere mm-hmm. heure bu ñëwee laajte ko rek ñu ni Serigne Saliou dem na bi te Serigne Saliou buy dem jamono ji amul moyen mm-hmm. danaan dox Serigne Abdoulaye bind ko téere bind ko lettre Serigne Saliou nag dafa garde woon lettre bi jalousement dañu ko maa ngi lay massawu yow Serigne Saliou ci ni ngay sonne ci sàkku xam-xam mm-hmm. maa ngi lay massawu ci ni ngay sonne ci sàkku xam-xam moo tax gis am na benn téere bu mu bëggoon moom Serigne Saliou mu dem ci Serigne Bassirou Mbacke sëñ Basiru ne ko am ko fu mu dem ñu ne ko kenn gis amul téere bi muur ko fu ne amul téere bi am ku ñëw daan ne Serigne Saliou amagul ñaar fukki at de hmm. am ku ñëw ci moom daan ne ko téere bi de am na góor gu baax boo ko yor Saloum xoolal sëñ Saliou fi mu nekkoon ak Saloum sëñ Saliou keroog bi muy dem dafa dox amul lu ko yóbbu moom Serigne Saliou waaw dafa dox pour wax la nit ñi bi mu demee ba ci waa ji waa ji ne ko téere bi de yi wax dëgg fa yàlla mënuñu la ko abal léegi ñaar rek a mën a nekk mooy nga toog fii bind <laughs> bind ko wala nga toog fii jëm ko mokkal comme nag boobu dafa nekkoon ci lu euh, mu tudd ci kilifteef. Hmm. mu daal di toog daal di lu mu gis rek lu mu ci mën a bind ci téere rek mu jël bind. waaye lan la indil Serigne Saliou Serigne Saliou xam-xam bi ñuy wax xam-xamu géographie. Hmm. dafa wax ni wax na ku mos am mos na ko wax ku tudd Mouride Samb. Hmm. Mouride Samb euh, dafa ñëw di wax Serigne Serigne Serigne Serigne sëriñ di wax ak Serigne Saliou. xam na niis. Sëriñ Saliou di ko tracé le niis ba mu sàmm ni ko may sëñ bi xanaa da ngaa mos a dem foofu mu ne ko mosuma faa dem ndax man liggéey Sëriñ Saliou Touba bi rek moom loolu kenn dabu ko ci nest ah. léegi bu mu ko waxee loolu Sëriñ Saliou n'est-ce bi mu ñëwee mu sotti ko daal di soog a ñibbisi waaye xoolal Sëriñ Saliou bi mu fiy jógee lan ñaata la bàyyi ci liggéey Sëriñ Touba bi ëpp na fukki milliards moo tax nga daan dégg mu naan xam-xam bii di xam-xam géographie géejoo naa ci noo xam ni mënuma ci wax ku yàlla yàlla bind moo tax fa ma fekk rek ma saxoo noppi ndeysaan am na solo mu ngi ko kon sëñ Cuun ci oh, yu am solo mm-hmm. ak li mu joto daanalee ci Serigne Saliou di yaakaaru Soxna Jaara Jaañ moom di ko may mm-hmm. eh, moom it di jàmbaar lool xër lool ci Serigne Saliou leer na ma ni fa mu toog mu fay tuuree xew waaye comme ni nga ko waxee Serigne Touba euh, comme ni nga ko déggee léegi Serigne Touba jàngal nga ñu Serigne Touba ni ndaw ñi war a jëlee exemple ci moom ci wàllu xam-xam. Mm-hmm. ci wàllu xam ban taxawaay la ñu war a am ci xam-xam. Mm-hmm. rawatina ci jamono ji nga xamante ni fi lañ toll sëñ Pape. Mm-hmm. mel na nii bu ñu sampoon ab laa jëmale ci loolu ci ndaw ñi lu ñu war a copier ci Serigne Touba encore ba tey muy pas-pas. pas-pas ndaw ñi ban pas-pas la ñu war a am ci seen yoon. ngir bëgg ngir àgg fi nga xamante ni fi la leen société bi soxla wala fi fi leen diine ji soxla kon lan nga ci mën a jox foofu noonu ci jàngale Serigne Touba. jërëjëf Oustaz laaj nga ma question bu ma neex. muy pas-pas. xam nga lu mës a taxaw ci àdduna. ak lu mu mënti doon pas-pas a ko taxawal. himma. waaw himma. yonent bi dafa wax ni benn jour law kaana himmatul insaan fi suraya la naadathu dafa ni yitte yi doomu aadama su nekkoon ci dem ba ca biddeew ba na sori mu yegg fa ndeysaan bi yonent bi di wax loolu c'était au sixième siècle y avait aucun moyen scientifique bu mënoon a prouver loolu am yitte taxawaay yi almaktum dafay wax ni c'est la volonté importante pas-pas rek moo am solo hmm. am nit ki bu amee pas-pas lu mu bëgg réaliser ci àdduna am dina ko réaliser hmm. Abraham Lincoln moo nekkoon 16e président des États-Unis d'Amérique dafa mës a bind ci kayam daan ne man Abraham Lincoln sama pas-pas ak sama taxawaay boobu kenn la am. Hmm. bés dina ñëw dina mës a nekk kenn kañ la nan la xaw ma yàlla rek a xam. mais hmm. pas-pas la ko teg Serigne Touba ci pas-pas. waaw Serigne bi doy na rek ci Serigne Touba ci pas-pas tey fan ngay dem ci àdduna toog gisoo fa kër Serigne Touba. déedéet amul. waaye est que toog moo ko mayoon. bi mu naan xusóor yi xal la. wala ahlu an yatafarraqat ngir lan li mat xil la si ma di xasiru ndaw ñi bëgg nañu tekki waaye bëgguñoo sonn. déedéet te borom daara ji nag danoon naan ku bëgg dara te dara ji nga bëgg jarul def dara doom ci dara ji dara. bëgg la. sëñ Touba yonent bi bi ñu koy génn màkka jàkkaarlu nag màkka di tuur ay xéewal di jooy lu tax parce que ñu ngi may génn ci dëkk bi ma gën a bëgg sama àdduna. ndeysaan muy màkka. waaye sëñ Touba nee na xusuri xalat jëlee nañ ma sama dëkk bi ma bëgg muy Touba nañ koy génne di ko yóbbu Serigne Touba ak lan. wal ahlu anni tafarraqat bu ñu fàttalikoo bii muy dem jël loxoom bu de ba teg ko ci loxo së bopp Serigne Fallou. tegaat ko ci bopp Serigne Moustapha Al Karim. lu mu leen wax dénk naa leen yàlla ak seen baay Thierno. dañ ne ko Thierno rekk na nga muñ rekk na nga gore rekk na nga am jot. Hmm. damay dem di wuti loo xam ni su ma demul dara du sotti faw ma dem. ngir ñëpp mën a jariñoo tey sëñ Touba sept ans mu ànd ko tubaab bi nee naa la 33 ans dañ ko privé liberté waaye am na yitte pas-pas boo xam ni li mu war a liggéey. bu ñu demee ba fatu fasub Serigne Touba. di joxe dépense ngelamu fañ ko suul fas. ndeysaan waaye mais métit yi ak tartar ak pas-pas keroog gis nga bi muy bi muy jóge Ndar di dem di dem di dem Dakar. ci ci woo dafa woor te nekkuñu ci weru koor. nee na keroog bi ñu may dugal ci néeg ba nee na néeg ba moom euh, pour nga dugg sax problème la. bi ma tegee sama tànk xam ci ñaw ko laa ko teg ci ràbb mënuma dellu ginnaaw mu sar tegaat beneen bi nee na borom bi gëdd jibril ñu ko demal xool xool bi ba xam tokk ci ngëm dina ci dañ suñ tubaab nee na borom bi jibril ñoo mi ngi ma fekk ci ashukr wa rida wa sabr ndeysaan suñu borom hmm. lii nga bëgg ci man lii moo la neex ci man maa ngi lay sant bu baax sax lii moo la neex ci man suñu borom maa ngi ngi lay gërëm lii nga bëgg ci man war rida suñu borom asabr maa ngi muuñ ndeysaan coono yi paq yi métier yi lu la ñu ko Serigne Touba tàkkee lak sa famille jëlé la sa dëkk. sept ans nga nekk ko ci àll bi. bañ nan sax asiru maal abrar hina asiru. wasan naa daa anni hunaka asiru. parce que xam na ni am na lu mu bëgg te li mu bëgg pour mu am ko faaw mu am fu mu jaar. faaw mu jaar fi mom la lay wax rek. ndaw lu bëgg tekki wala bëgg jëm ci kanam da ngay nangu pass pass yeeg yi ni mel. parce que loolu rek kay tax li nga bëgg nga am ko des fois nga dégg ku ni la yàlla mooy dogal mën ngaa bañ a mën euh, dama dafa am benn jour kuy joxe exemple daal ni ma boo demee port hmm. ki fa gën a néew muy fayal ko mooy mbaari njënd bi mooy ñi yanu hmm. noonu la ko waxee nag hmm. mu ma waaye am na koo xam ci ci ci ci lay toog kilim yi tiim ko ma ne ko dama demal ka nekk ci biiróom kilim yi tiim ko nga ne ko foo jaar foo jaar ba toog foofu waaw ah, demal nga laaj ko <laughs> n'est-ce pas koo ñee ñeewul boppam donc loolu mooy li nga xam ni moom la ndaw ñi war a jël ci Serigne Touba ci pas-pasam ci taxawaayam ci yitte ji nga xam ne am na ko ba wax ni man lépp loo xam ni nit mës na koo réaliser ci àdduna dinaa ko mës a réaliser am na ku ñuy wax Paulo Robinson mhm. moom c'est un professeur d'université ah. États-Unis la nekk bokk ci professeur d'université yi gën a mag ci àdduna mhm. keroog bi mu ñëwee Sénégal université Anta Diop dafa ni xaw ma de kii ban sëriñ la waaye ak lii mu bind nii mu ni lii de programme bii bis buñ ko doxaloon dëkk bu ñu ko doxal teg ko ci yoon dëkk ba jëm kanam. donc yitte jooju il faut que ndaw ñi daal di koy jël ci Serigne Touba. Hmm. xam ni itam la réussite est au bout de l'effort dafa am bi may def euh, licence arab hmm. dafa am benn poète poète bu ñuy wax bi hmm. war nga koo xam. almutanabbi jàmbaar la. jàmbaar la danañ wax naan maa bi xaw mi sharaftu bal sharafu bi. waaw dañuy du du du man. maay vanté wu. wala maay tiitaru. Hmm. ci bokk gi ma bokk ci famille sàngam. waaye famille sàngam ñooy tiitaru ci bokk gi ma bokk seen biir. loolu mooy taxawaay. macha allah am na solo sëñ Pape comme ni nga ko waxee rek. nga nekkoon ci lu am solo ci Serigne Touba ndaw ñi lan la ñu war a jàng ci moom ci wàllu pas-pas. Hmm. waaye xam naa li ñu tënkoon bëggoon ko waxtaanee fii tey ci palaato bi. Hmm. jàpp naa ne dafa mën a xaj mooy Serigne Touba. moom rek xajul ci xajul ci at. xajul ci weer. waaw waxuma laak nag buñ ci boolee ku mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall ak euh, ki nga xamante ni mooy Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al sa professeur waaye xam na fi ñuy jeexalee rek mooy nga ñamoon ñu tuuti rek laataa ñuy àgg ci deuxième partie bi nag xam naa lii luy laajaat beneen semaine ñi ak ñi agsi ci mm-hmm. ci maam Ibrahima Fall diggante maam Cheikh Ibrahima Fall ndaw ñi war a jàng ci moom ci wàllu bind ndax kenn demul moom mu des jàmbaar la muy làmp boo xamante ni gindeekuwaay la ah. euh, waaye xam naa ci tënk rek lan nga ñu mën a jox

benen bi le ministre des finances du mouridisme ci jamonoom daan joxe cinquante mille chaque mois ci yoonu murid. maam Cheikh avocat est-ce que xamoon nañ ko. déedéet suis Cheikh tampon boo xam Cheikh Fall lañ ci bind. fu comptoir boutique. <laughs> mais loolu lan moo may monsieur. xam nga Mm. ñu ne ko waaw mu ne rus naa koo ñaan suñu borom <laughs> xam nga ki nga xam ni li ñàkk di may rus na koo ñaan boromam mm. du tàllal loxo moromam nan ko fajal ma sama soxla moo la daa musa am ku ñëw ci moom di yelwan mm. daal ni ko way yàlla ngi yelwan mam Cheikh Fall sarax ko pare ni ko bu la waxati way yàlla ngi yelwan juum nga yàlla du seetaan waayam ba muy yelwan <laughs> moo dégg waaw euh, euh, exemple bi may joxe rek moy bi muy joxe exemple ci tan hmm. ñu jeexalee fofu n'est-ce pas ci tan wa d'accord ci tan <laughs> madame Ndiaye xamna légui fekk ñu d'accord dafa wax ah. ni ndaw ñi nañu roy tan ci ci ci ñett hmm. ci patience boobu hmm. parce que tan borom bi daf ko natou mom médd rek la wara dundé kon tan mom limu wara dundé même bu fa nekkoon di sukuraat 100 ans tan bi mu leer ko ni dafa xif du ko jariñoo tank que nekkul médd patience boobu Mame Cheikh Fall na ndaw ñi dañ ko jël ci tan. ñëwal ñu ci kilifa ga. Mame Cheikh Fall ni nañu roy tan ci wàllu maanaam mbokk. Hmm. mbokk parce que benn tan nga gisoon bu affaire bi nekkee mbedd li mu war a jëfandikoo. Hmm. dangay ngay jékki-jékki gis tan yu bari day dem wooyu ay mbokkam. Mame Cheikh Fall nee na loo kuy def loo am lekk ko yow dong deegu deegu la bett ngay dee. moo tax fu say mbokk nekk xam nga ko. Hmm. loo am mbokk say mbokk. ci kilifteef bi nag. bu tan yëpp ñëwee dafay am lu ñuy wax buuru tan ginnaaw gi dafay weex bu ñëwee ñu ni ah nañu xaar kilifa gi jëfandiku na moo loolu mooy ndaw ñi nañu wuti kilifa am kilifaay li am solo soo ko amee. am nga solo soo amul. amoo solo ku wéeruwul. yow nga bëma. Ah. <laughs> mu tax nag mu kon ndaw ñi nañu roy tan ci am kilifa. <laughs> ndeysaan macha allah macha allah am solo sëñ Thioune di ko ziar di ko di ko santaat bu baax. Ah, si disponibilité bi nga xamante ne am na ko. Mm-hmm. Ah, ci mayuñu bi nga xamante ni mooy émission ñi sekk ak moom plateau muy jàmbaar. Mm-hmm. xam ngeen ni émission bi commencé gul lii ubbi la rek ngeen ni dafa ubbee ki tedd ki rek te mooy Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu Euh, war ñoo ñëwaatal ci ki nga xamante ni mooy buntu moo wala mooy baabul muridin muy maam Cheikh Ibrahima Fall gis ngeen ni mu commencé ci moom ubbee ñu euh, ci maam Cheikh Ibrahima Fall jàngal ñu ci jàngale maam Cheikh Ibrahima Fall ci wàllu gëm sa bopp waaye it ci wàllu patience waaye it ci wàllu am kilifa waaye it saa yoo amee nga bàyyi xel ñi nga xamante ni ñoom la la yàlla booleel muy mu tënk muy tënkal ñu li nga xamante ni moom la ñu ubbee ci maam Cheikh Ibrahima Fall war ko àggali ci beneen semaine incha allah dooree waat ki nga xamante ni mooy jàmbaar ga ah, di maam di maam Cheikh ah, Tidiane Ahmad Tidiane si almaktuum ah, di jàmbaar lool moom it ay bindam nekk loo xamante ni du fay ba tey ñi ngi koy suuf mi ngi koy jooy ngir ni jàmbaar la woon goo xamante ni foo ko natt weesu na ko di maam Ah, di doom ci sëriñ Babacar si ah, di jàmbaar lool waaye it xam naa dañ koy jox rek mu tàggatoo ak mboolem ñi nga xamante ne ñooy la ñooy téléspectateurs yi sëñ pap ba beneen yoon incha allah. jërëjëf sant naa la bu baax gërëm naa ni incha allah beneen rek ah, jaajëf comme mi ngoo comme ci tàggoo bi eh, di ko santaat bu baax a baax di santaat bu baax waa groupe Prestige Thiès di jiital la DG Pape Doumbia ak waa Rési ñoom madame Ndiaye ñoom El ak eh, la Kia di ko bu baax a baax. di nuyuwaat bu baax a baax yi nga xamante ñoo ñuy safoo ci suñu émission la place de l'enfant dans la religion di leen joxaat dig daje ba beneen semaine incha allah ci biir Prestige Thiès salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. يقاتل